bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu leen ziyaara di leen baalu àq leen ko baal tey ñaan sunu boroom yàggal kilifa gu mag gi ci sunu kanam te wéral ko eh, ak moo kilifa yépp yàggal nu ci seen ginnaaw ñu ànd na ñoom ànd yu gën a rafet waxtaanu tey wii ay kàddu la yu bàyyi ko ci kilifa gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafizahu llahu waraahu ñu di ko jot li mbooloo mi mu aju ci li xew ci jamono muy wéradi gi nga xam ne e, xel yépp ci la nekk mu daj àdduna ba yàlla dogal mu dugg Sénégal mu am ay taxawaay yoo xam ne warees na ko cee taxaw moo waral sëñ bi joxe ndigal ci ñu jot li kàddu yi kon kàddu yi kàddu yi sëriñ bi lañu koy jot li kem kàttan ñu bëgg ko tënk nag ci ñeenti tomb bi ci jëkk mooy sëriñ bi nee na mi ngi jox ndigal mbooloo mépp ci lii nga xam ne moo xew mu yore di gi euh, tegtal ak ndigal ak dénkaane labire yi nga xam ne ñiy saytu wér-gi-yaram ñi ngi ko ciy joxe nee na mi ngi digal ñëpp ñu topp laabire yooyu ak dénkaan yooyu ngir mën a aaru ngir mën a fegu te loolu ñoom ñu ngi koy tënk rek ci ñu wàññi jaxaso yi nga xam ne yépp yu mënta ñàkk la ñu wàññi ko euh, te itam fonk set bu baax a baax fonk set bu baax euh, rawatina saa yoo xamee ne nit ñi ñi ngi jëm ci mbooloo baa ñu jóge ca bépp matuwaay boo xam ne dana tax euh, nit ki mën a fegu ñu jàpp jël matuwaay boobee ci loolu daayiratu muqaddamatul xidma jotoon na ndigal ci sëriñ bi ñu waajal ay ay jumtukaay yoo xam ne ay fegukaay la ah, yoo xam ne ñu ñëwul ñëpp ci barab bi ñu ngi leen diggal ñu jëfandikoo ko ni ñu ñu koy santaane loolu lépp dugg ci biir fegu gi ah, kon ñu fonk cat gi bu baax fonk itam wattandiku bu baax ak ah, waggar ci fegu ak moytu bu baax a baax ndax loolu moo dëppoog li lislaam santaane ci nit ki di jël ay matuwaayam di jaar ci sabab yi nga xam ne sunu boroom daana ca lëkkale ay dogalam sunu boroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci benn xadis ne laa adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa firra min al majzumi kama tafirru min al asad kon ci biir xadis bi digle na ci ne képp koo xam dafa yor jàngoro juy wàlle nañu koy nañu moytandiku di jaxasook moom di di ko di ko wattandiku bu baax baax a baax am na beneen tomb ak aj ci xadis boo xam ne dañ ñëw ci tomb bii di ñëw kon daal mi ngi jox ndigal ñëpp rek ci ñu dëppook laa biire ak ndigal yi nga xam ne ñiy saytu wér-gu-yaram ngi koy digle ci jàngoro ji ngir mu bañ a law ngir mu bañ a tasaaroo ngir fagu euh, ak wattandiku ak jëfandikoo sabab yi nga xam ne lislaam dafa santaane ñu jëfandikoo ko te loolu itam bi sëriñ bu mag bi santaane waxoon na ne wala wa in takun multafitan bizi wa in yakun multafitan bizi faqad taayana aljamu lada man qad naqat wa huwa faraagu alqalbi minha littikaal maa mubasharatiha bilimtisaal li annahu li annahu amara bilfiraari min sababi alhalaaki waddiraari ibaadahu li sababi salaama fajtanibanna muujibal malaama wa huwa firaaru ya axi min qadari rabbil wara li mislihi bil xasari sëriñ bi nee na nit ki dafa war a boole wakiirlu ak sabablu mu ne suñ boroom digal na jaam ñi ñuy daw bépp sabab lépp loo xam ne lor bu ñu ko defee lor mën na leen caa fekk ak alkande ñuy daw loola jëm ci lu leen di tax a mucc ak lu leen di taxa aaru mu ne nag fegu googu daw googu ngay daw li lay lor di jëm ca la lay musal boo ko defee yaa ngi daw dogalub yàlla la jëm ci beneen dogal ndax boo jonjowoo nag la lay lor boo loroo dogalub yàlla la waaye soo moytoo bu muccit mucc gi dogalu yàlla la kon suñu boroom digle na nit ki di wattandiku lépp loo xam ne lu ko mën a lor la mu di ko wattandiku kon sëriñ maa ngi joxe ndigal ci googu wet bu baax a baax tomb ñaareel bi mooy ñu mu ngi wax ne nañu dëgëral pas-pas yi te wéral ngëm gi te xam ne yàlla mooy buur bi nga xam ne lépp ci loxoom la nekk moom mooy lore mooy jariñe lépp lu am moo koy dogal inna kull inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar wa kullu shay'in indahu bi miqdar amul dara luy am te yàlla dogalu ko kon jàngoro ji itam nañu moytu bu baax waaye nañ gëm itam ne ab jaam la boo xam ne du dal ci kaw jaam bu ko yàlla joxul ndigal mu dal ci kawam képp ku yàlla digal jàngoro ji mu mu dal mu dal ko kookee jàngoro ji du ko dal kum digal mu dal ko it kooka lay dal kooka it la ko ca borom ba digal lay def bu fekkee suñu borom lëkkalewut faatu jëmmu ja ci daluk jàngoro ji itam mën naa dal nit ki te du ci faatu kon nit nee na ñu dëgëral pas-pas yi dalal xel yi te rafetal njort yi te ànd ak sago boole ci gëm yàlla nag akuk eh, ak daluk xel delloo mbir yépp ci yàlla xam ne nag sunu borom mooy buur bi jàngoro ji du yàllay boppam joo xam ne day doxee nu mu ko soobee di def lu ko soob yàlla mooy def ay dogalam sabab rek la ci biir sabab yi ku yàlla dogalut mu nar ko dal du ko dal ku mu bu yàlla nangu dogalut mu nar ko fat du ko faat kon nañ ci boole gëm yàlla bu wér a wér a wér mi ngi wax ne qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana wa mawlayna wa ala llahi falyatawakkalil muminun yow yonent bi sallallahu alayhi wa waxal ne ñun dara duñu dal lu dul lu yàlla dogal ne moo ñuy dal ndax yàlla mooy sunu boroom bi nu moom ñu ñu wéeru ci moom di ko ragal di ko yaakaar te nee na ñi gëm yàlla ñëpp dañoo war di wakiilu ci yàlla dañoo war di bàyyee seen bopp yàlla te wóolu ko te xam ne njariñ ak lor ci moom lay e, ci moom lay bàyyi ko sëriñ mag bi dañu wax ne kullu ma asaabana lam yakuni yuridu an yuxti ana min mihani wa kullu ma axtaana lam yakuni yuridu an yusibana fi zamani nee lépp loo xam ne dal na nit suñu borooma nam mu mu ñàkk koo dal waaye lépp loo xam ne tam nit mucc na ca suñu borooma dogaloon ne dana ca mucc kon lépp mi ngi ci dogalub yàlla mu ne kon mi ngi bëgg ñu delluwaat bu baax ci pas-pas yooyu gëm yàlla bu wér-wér jaar nag ci sabab yi li war lépp ci waggaraku mooy toog wattandiku ñu di ko def waaye nañu boole ci ak gëm yàlla xam ne dogal yi nag ci loxo yàlla la nekk yariñ ak lor ci loxoom la nekk ñu dalal xel yi rafetal njort yi te ànd ak sago ak dal tomb ñetteel bi itam nee na nanu delloosiwaat sunu xel te seetaat sunu bopp ndax ab jullit wala sax doomu aadama lépp lu ko dal ci ab safaan na xam ne moo ko teg boppam moo am lu mu def ci digganteem ak boroomam lu mu warutoon def ba tax dogal boobee dal ko wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir suñu boroom wax na ci alxuraan nee na lépp lu leen dal ci luy dale di lore yàlla ngi leen ko teg ci sababus lu ngeen def ci seeni seen jëmm lu ngeen defal seen bopp kon lépp lu dal nit ki ci xeeti nattu ak i musiba ki balaa ki jàngoro ki yopp ak yooyu yépp ak i jafe-jafe ki xat-xat ci àdduna ji loolu li jaam bi war a njëkk def mooy dafa war a njëkk a dafa war a dellu ci boppam tuumaal boppam xam ne li mu def li ko dal nii moom moo ko def moo ko teg boppam moo def lu mu wërta def ba yàlla faye ko lii ko dal mu ne kon ñëpp nañ delluwaat seetaat sunu bopp seetaat sunuy pas-pas seetaat sunuy doxaliin ci sunu digganteeg sunu boroom ak sunu digganteeg suñu moroomi jaam jubbantiku waat euh, tuub tuub gu sell dellu ci suñu borom kenn ku nekk wéetal sa bopp nga sa boroom nga wéetal sa sa boroom tuub mboolem bàkkaar ak ñaawteef ak safaan yi nga xam ne yépp def nga ko nga nangu ne yaa ko def tuub ko te ñaan suñu boroom jéggal la أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا واشهدوا لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول kon sëriñ bi jox neen digal neen ñëpp nañ seetaat suñu bopp xoolaat suñuy doxin euh, lépp loo xam ne gis nañ ne lu ci rëkk la ak lu ci jubut la ñu jubbantiku tuub dellu ci sunu boroom tuub sunu bàkkaar yëpp yëpp yëpp yu dox suñu digganteeg moom ak yi nga xam ne yëpp ay àq la yu dox suñu digganteeg suñu moroomi jaam euh, ñu fexe ba balonte àq kenn ku nekk fas ci xolom ne jéggal na mboolem ñëpp julliti yàlla yépp jéggal na leen bépp àq bu ñu amee kenn ku nekk fas loolu ci sa xol jéggal sa moroomi jaam yépp tey tuubal sunu boroom ci mbooleem eh, ay rëcc rëcc ak i njuumte ak i bàkkaar yoo xam ne def nañu ko ñu dellu ci yàlla tuub tuub gu sell te ñaan ko mu jéggal nu tomb ñeenteel bi tey bi ci mujj mooy nag li nga xam ne mooy ngànnaayul jullit bi nga xam ne gëm na ne yàlla mooy boroomam te mooy lépp lu am moo koy dogal kàttan gépp ci loxoom la nekk mu dellu ci yàlla moomu ñu dellu ci yàlla ñaan ñaan ko toroxlu euh, ñaan bu baax sunu boroom euh, teggil ñu jàngoro ji nga xam ne moom la teg moom la indi ci àdduna suñu boroom jeexal ko musal ci ñim dalul ñëpp te ñim dalit yàlla wéral leen te jeexal ko it ci àdduna sépp rek Eh, génn ko ci suñu réew génn ko ci réew jullit yëpp waaye génn ko ci àdduna sépp mu jeex tàkk eh, ñépp toroxlu dellu ci yàlla ñaan ko ndax ab jullit dafa di dellu ci yàlla di ko ñaan waxtu nekk ndax ñaan jaamu yàlla nit sax warut nekk ba nekk ba na ci jafe-jafe baa mu am dool di ñaan waaye ñaan ci boppam rek ab jaam da ko war def saa su nekk ngir di yëgle di ngir ngir xam gu muy xam ne moom ku lott la ku tëli la ku aaja ku soxla boroomam la ci waxtu nekk moo tax suñu borom bi wax ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal wala mu ne suñu borom seen borom nee na ngeen di ko ñaan ngeen di ko ñaan kon dana leen wuyu ngeen di ko ñaan kon dana leen nangul nga xam ne dañoo rëy nag ba duñu ñaan suñu borom di ko wan ginnaaw nee na ñooñu rëy rëy lu googu ñu def ba duñu nangoo ñaan seen borom ne na ñooñee sax bu ëllëgee su borom dana leen yóbbu sawara toroxal leen ngir réy googu nekkoon ci ñoom ba nangu wutu ñaan mu ne wax iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani mu ne wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bu la jaam ñi sama jaam ndax ku sori laa wala ku jege laa na leen xamal ne man ku jege laa koo xam ne képp ku ma woo man taw ma danaa ko wuyu nangul ko la nga xam ne moom la ma ñaan euh, loolu kon ñu de nee na ñu delluwaat kon toroxlu dellu ci suñu borom ñaan ko ñun ñëpp ñu tàllal suñu loxo suñu borom euh, toroxlu ñaan ko mu teggi lor ji te teggi yeneen lor ju mën a doon itam te ñoo di li mboolem yiw ak ngëneel li nga xam ne yëpp yaakaar nañ ko ñaan ko daal mu mu mu jañal nu te ñoddil nu euh, ngir solo si nga xam ne ñaan am na ko euh, ci ab jaam suñu boroom mi ngi wax sax ne nit ki saa yu demee ba sës ku ku loru ku dem ba sës rek nga xam ne amatul menn pexe ci fi ci fi mu toll moom boppam moomu yaakaar bu delloo ci yàlla doon te sax ab yéefar la yàlla day nangu ak ñaanam ndax yërmandeem ju matale ji amman yujibul mutarra iza daahu wa yakshifu suu wa yaj'alukum xulafa al ard a ilahu ma allah qalila ma tazakkarun suñu borom nee na moom mooy ki nga xam ne bu nit sësee bu nit amee njàqare ba sës ba amul fenn fu mu jëm ak menn pexe mu mu def su ko ñaanee dana ko wuyut boobu boobaa dootu ci xoolati kii jullit la wala moom mooy teggi naqar yi ak jafe yi ak musibe yépp yàlla moo koy teggi kon nee nañ ñaan yàlla moomu sunu boroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne xassinu amwaalakum bi zakaati wa daawu mardaakum bi sadaqati wa aidu lil balaa'i bi du'a nee na bu ngeen bëggee seeni alal di ñoŋ di leen bu ngeen amee ay nit ñu wéradi na ngeen sàkk sarax ñaan yàlla teg wéral leen waaye nag bu ngeen amee nattu bu tege ci seen kaw seen waajtaay seen gànnaay li ngeen di jëfandikoo na nekk ñaan kon addu'a silaaxul mu'min kon ñaan mooy ngànnaayul jullit moo tax sëriñ bi doon wax ne isi doa yan fawu maytan fil qubur wa yan fawul xayya wa yujibul uyur nee na ñaan dafa am solo sëriñ bu mag bi mu ne ñaan dafa am solo ndax ñaan day jariñ sax ka faatu ba nekk ci bàmmeel ñaan da koy jariñ mën naa tax yàlla jéggal koy bàkkaaram mën naa tax yàlla yërëm ko mën naa tax yàlla woyofalal ko eh, ay jafe-jafe yu mu nekk waaye nee na kiy dund ci àdduna itam ñaan da koy jariñ da koy jariñ ci di ko fanqal ay lor ak di ko ñoddil ay njariñ yàlla dogal lor yu yàlla dogal mu war mucc ak lor njariñ lu yàlla dogal mu nar ko am ñaan da koy day ñoddi di jañ eh, ci coobare suñu boroom ñaan it day waral nit ki am tuyaaba ci ñaan gi kon mu ne loolu itam nañ dellu ci suñu boroom ñun ñëpp rek toroxlu ñaan suñu boroom teg gi eh, far njàqare li nga xam ne moom la jur yëpp di yëg ci seeni xol te di ko tiit ak a moytu kon lii mooy ci tënk rek mooy kàddu yi sëriñ bi wax ne nañ ko jottali mbooloo mi nee nag lii ay ndigalam la yu muy santaane ñu jokk ñu jottali ko li ñu doon wax ci xadis bi buñ tàmbalee la adwa jooju ñu tàmbalee te waxoon ne dañ ci dellusiwaat ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne li yéefar yu njëkkee jàppoon ne jàngoro buy wàll nit Euh, moo koy defal boppam nga xam ne daal jàngoroom bu ñëwee rek ku ku ku ku ku ku jonjoog kam mu daal rek mu daal koy wàll ca saasa te du am euh, amul dara lu koy fekk mu ne mbir mi nag demewul noonu euh, yàlla ci boppam rek moo yor ay dogalam di dogal ci ay jaamam kon jaxasoo ak ku yor jàngoro bu soobee yàlla mën na koo def muy sabab buy tax jàngoro ja jógee ci ki mu dal dem ci ku mu dalutoon yàlla mën na ko def saw bu ko soobee waaye bu ko soobee it jaxasoo bi mën naa am te eh, toxug jàngoro ji du am kon nag ñu gëm ne kon yàlla mu wax ne kon yàlla ci boppam mooy kii tege mooy kiy tege lii ñuy gis ci kaw nag yëpp ay sabab rek la yu yàlla yi lëkkaleel ak ak dogalam loolu mooy pas-pas bi nga xam ne moom la ñu lislaam di jàngal kon ñu fàttali ne sëriñ baa ngi ñuy digal ñu tënku ci laabiire ak dénkaane yi nga xam ne ñiy saytu wér-gu-yaram nit ñi ñu ngi koy laabiir ak di ko dénkaane ngir ñu mën a mucc ci jàngoro ji ak ñu mën a fekk ak lawam euh, loola lépp lu ci ñiy saytu wér yaram wax rek nee na mi ngi digal ñëpp ñu tënku ci dénkaan yooyu ak laabiire yooyu boole ci waggar gu mat sëkk euh, ci yi ñu war a def yépp daal ñu def ko waaye itam ñu boole ci gëm yàlla gu wër ak dalu xel ak rafet njort ak wakiilu ci yàlla te xam ne jàngoro ji ab jaam la boo xam ne du dal moroomam jaamam mu ko yàlla joxut ndigal ci mu dal ko ku ko jox ndigal mu dal ko it fa ko ci yàlla yem loola la koy la koy fa yem wa ma kaana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaaba mu ajjala amul benn bakkan buy faatu lu dul ci coobare suñu borom ak ndigalam lay amee euh, tey day fekk suñu borom bindoon na digub nit ki fa mu war a yem euh, ba bu ca àggee du ko mën a weesu mu nekkoon ñu gëm yàlla bu baax te rafet njot dalal xel yi ñetteel ba it mooy euh, ñu yàddaat suñu bopp xoolaat suñuy doxin ak suñuy toogin tuub dellu ci yàlla bu wér a wér ndax ab jaam lépp lu ko dal ci lu lu koy lor lu koy tiital ci moom la bàyyi ko fa maa yusibuna min ar-razaya bi kasbi aydina min al-xataaya ñett ñeenteel bu ma ñu dellu ci yàlla toroxlu ñaan kon daal lii mooy kàddu yi nga xam ne moom la sëñ bi waxoon ne nañ ko jot li eh, ñu doon ko jéem a jot li eh, ci suñu kàddu bopp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan suñu borom jeexal jàngoro ji nag jeexal ko ci àdduna sépp te jëkk koo jeexal ci sunu réew mi ak ci réew jullit yépp waaw te yàlla wàcce jàmm yàggal fi kilifa yi yàggal nu ci seen ginnaaw ñu ànd ak ñoom ci ànd bu rafet wasalaamaaleykum wa rahmatullahi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 واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على السلام أهل الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي عم العوالم جودا وإحسانا وجعل لفيضان رحمته أوقاتا وأزمانا نسأله أن يوصل منا الصلاة والسلام ويوالي المبرة والإكرام على سيدنا محمد الذي فتح لأمته من سعادتهم ما أراد وشمل نعمة شريعة بنعمة شريعته الحاضر منهم والباد وعلى آله الأعيان وصحابته الأعلام صلاة كاملة تتصل ما اتصلت الليالي والأيام أما بعد يا أيها الناس إن شهركم هذا رجب الفرد الحرام قد ذهب ثلثاه ولم نحسن فيه عبادة الله فأكثروا فيما بقي منه من نوافل الخيرات والأعمال الصالحات والبر والطاعات وإن فيه يوما عظمه الله على سائر أيامه كلها فيستحب تعظيمه شكرا لله والتعرض فيه لنفحات رحمة الله قال تعالى ومن يحظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فمن صامه ابتغاء وجه الله ومرضاته عوض الله بصيامه أجرا كثيرا فاجتهدوا يا عباد الله واعملوا عمل من يعلم أنه راجع إليه يجازى على الصغير والكبير سبحانه أنه لا إله إلا هو العلي الكبير الحمد لله راحم من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا وجابر الصدع من قصده منكسرا متواضعا لا إله إلا هو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما أصبح له مانعا نشهد أن لا إله لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا أيها الناس استنزلوا ما عند الله بالندم والاستغفار وقفوا بين يديه وقوف الذل والانكسار فإن من وقف بباب الكريم فتح له بابه ومن استغفره قضى حوائجه ويسر أسبابه وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار جعلني الله وإياكم ممن كان لحديث نبيه الكريم واعيا وفيما ينفعه يوم يقوم الأشهاد مجدا وساعيا لا يرفع شكواه إلا لمن يكشف بلواه ولا يعلن دعاءه إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وطهر قلوبنا ويسر مطلوبنا وأصلح أحوالنا وزكى أعمالنا وسدد أقوالنا وحقق في عفوه آمالنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 assalaamu aleykum assalaamu aleykum